tey def nañu euh, CDD comme euh, ni ñu koy defee fépp ci Sénégal pour préparer ouverture des des classes pour classe d'examen yi nga xam ne war nañ ko gouvernement yi fixé na ko 2 2 juin jàpp nañu ne mooy suñu yaakaar ak suñu yéene ne dinañu réunir condition minimales yi nga xam ne nee nañu ne loolu euh, moom nañu war a teg pour que xale yi war a mën a commencer. def ñaari mois yi ñaari weer yi ñu jëm ñu mën a jàng ci condition yu normal te wallaate biñ si ci ragal euh, vraiment mu bañ fa am ndax condition yooyu weesuwul lu dul euh, li jëm ci wàllu bu ñu ñëwee ba avant le deux ñu ñu nettoyer école yi désinfecté ko euh, que collectivité locale yi maire yi ak état bi ñu fexe ba kit hygiène yi ñu mën ko teg si buntu école bu nekk ak produit yi yi si muy ndox ak euh, eau de javel et cetera yi nga xam ne kuy dugg dina mën a euh, raxas euh, loxoom également masques yi parce que ñi ngi doon dem bay wax ñu ne au moins trois masques war élève bu nekk war na ko mën a am léegi dañuy ñaan sax naka la ñuy fexe ba maire bu si mën a yokk ba mu nekk cinq masques par élève mu def ko sinon parents yi ku nekk sa doom nga fexe ba wutal ko yeneen ñaari masque yu muy complété si ñetti masque yi parce que masque moom mënul bañ a nekk déjà obligation la te xam nañu ne foofu surtout si école bi masque moom dina fa jouer rôle bu am maanaam léegi leneen li si tegu mooy euh, ni ñuy nekke si classe yi dañuy fexe ba du ñu nekk si euh, lim boo xam ne euh, dañuy jàpp ne dañuy sëmbaxloo waaw dinañ fexe ba lim boobu du weesu par exemple Euh, ñaar fukk ak juróom ndax am na proviseur yu ko wax ne am nañu salle de classe yoo xam ne même bu ñu ko defee condition d'examen ku nekk ak sa table banc war nañu mën dem jël ba vingt cinq donc ñaar fukk ak juróom donc dañuy wax entre ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom ñu respecté lool loolu yaakaar nañ ne sa mbox loo du am si si classe donc bu ñu jëlee loolu même si cours bi dinañ fexe ak euh, proviseurs yi ak professeurs yi fexe ba récréation comme ni ñu ko doon waxee dootul am mais dinañ am ay moment yoo xam ne xale yi dinañ mën a génn noyyiwaat tuuti dugaat donc ay pause yooyu yëpp ay stratégie la yoo xam ne école bu nekk mën na si yokk leneen loo xam ne ñun sax nekkul suñu xel ndax xel moom mën na mën na génn lu ne donc mais lépp dañ koy wér si ne dañu bañ rek kenn wàll kenn te yaakaar nañu ne bu fekkee nit ki jël na ay matuwaayam si këram si quartier ba kenn wàllu ko dara matuwaay yooyu bu ko continuer école ba kenn du ko wàll te am nañ si am nañ si yaakaar bu baax. waaw waaw commencé fagaru defe naa moom moo moom moo gën ndax euh, jàpp nañu ne ñun ñëpp ay parents lañ ku sañoon euh, bala sa doom di dugg si dara day fekk nga am si lu la leer te dal sa xel mais euh, ni ñi jàngat si épidémie bi gis nañu ne comme ni ñu koy waxee dañ ko war a dundaale donc dundaale ko mooy duñu waruñu nangu épidémie bi ëpp ñu xel. ndax ñeneen ñi dañ naa épidémie dafa bëri xala dafa bëri dafa bëri xeltu ah ay ak ay feem waaye yaakaar naa ne nit moom épidémie ni mu mënti toll ak virus ni mu mënti toll nit a ko ëpp feem ndax euh, nit moo gën a jege yàlla te loolu nañu si tey noonu ndax attitude boobu parent war a mën a am loolu day jouer aussi si xale bi ni muy demee si école am na nañu comprendre ne euh, gannaaw yàlla euh, mesures yi buñ ko jëlee rek ni ñuy dunde nii ni ñu demee ba accepté bay dund nii si suñu quartier yi bay dem marché di dem di ñëw ba ñenn ñi bay dem juma di julli di ñëw loolu war nañ ko mën a dunde euh, si école yi te te yaakaar naa ni bu si ñëpp jàppee rek euh, dinañ mën a am euh, année scolaire bu bu jeex si jàmm